الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مبقي نجلين دي بباح دين زيار دينيان يال كورغي يانا نوكا يالا نانغول وايد نيانكو مباس مي امتي عدنا دي اي ناتو yal na suñu borom bi teggil ñu ko te yàlla bu ñu saalit yal na nu yàlla bàyyeex suñu ngëm kilifa yit yàlla dimmali leen ba ñu jëmalee askan wi fu baax ñu ngi jaajëfal ñépp kër docteur yeex ñépp rekk ñiy sensibiliser ci anam yu jaar yoon it ñu ngi leen di encourager bu baax yal na yàlla defal ñëpp tawfiix mbokk yi bu ñu ñëwee ci weeru koor nga gis ne weeru ngëneel la weer la woo xamante ne bi mu ngi wax ne iza daxala ramadan futihat abwaabu sama wala ci beneen riwaaya futixat abwaabul janna loolu suñu borom di def ubbi asamaan ubbi aljana loola mooy ne jàppandal naa leen yoonu def lu baax jafeetul la koy gëna firndeel mu ne wa sulsilati shayatin seytaane yàlla daf ñu koy jëngal kon nit ku ne dangay sawar di dem di jaamu yàlla waaye gis nga mbir mii dal tey adduna bi ñu koy dund kenn dematul fen lu dul dem bu néew jàkka yi tëj nañ leen marché yi ñu ngi réduire fa ñuy jum euh, liggéeyee kon marché bokk na ci war mun a mujj tëj ndax bu ñu ko tëjee rek loraange am kon loraange bi day gën a yokku de waaye fu ñu mën a nekk mën nañu ñaan ci kër yi mën nañu ñaan mën nga dox di ñaan mën nga wéet yow rek di ñaan waaye looy dunde foo koy jële ci marché yi xam nga kenn ci ñun walla ñi ëpp jéen ci ñu loo xamante ne mën nañ ci dund ay fan yu tegloo ñi ëpp bés bu ne rek ñu ngi lijjanti lañuy dunde kon marché yi kii lijjanti bu jotee ci marché bi lay daw kon nag nañ ko réglementé te ñu ngi ci waaye kantaan nag ne nañ ubbi jàkka yi dañuy def nangam déedéet yàlla moom ala kulli xaalin joxe na solution te lislaam du mas di dellu ginnaaw déedéet lislaam kanam rek la jëm kon dëkk lu ne rek nañ ko nattale ci alquran nattale ko ci sunn ayuha almushahidun kon bu ñu tolloo fii lislaam nee na la woon taawanu ala albirri wa taqwa ey dimbalinte leen ci lu baax kon waxtu wi waxtu dimbalinte jot na mbokk yi wane ne benn lañu kon bu jafe-jafe amee dimbalinte moo war a taxaw loolu boo ko laajee waa Quraysh ñu wax la ko li ilaafi Qurayshin ilaafihim rihlata alchitaai wa sayf seen bennoo gi ñu bennoo jàppalante doylonte wóolante dimbalinte solidarité boobule di ko def jamonoy tàngaay jamonoy sedd moo leen may force bi na am kon nag yàlla ne bu ma leen defalee loolu nag jaamu leen nag boroom néeg bii di borom bi subhanahu wa kon foo fekk dimbalinte rek njariñ lay jur mbokk yi dimbalinte diggante jullit yi suñu borom moko ko njëkk jàngal na la aya bi wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan wattaqu llaha inna allaha shadidul iqab dimbalinte mbokk yi bari na ay ngëneel bari na it ay njariñ ñu tuddal la ci yenn rek dimbalinte mbokk yi dafay tax xol yépp dafay nekk benn xol yi dañuy féex moom la yàlla waxoon na waatasimu bi qablillahi jamian wala tafarraqu nekk leen benn waskuru nimat allah عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا خمنتولين ون ميننت أمل ون walla même bu yooyu amoon ku nekk yaa ngi xool sa morom bëtu fiiraange waaye yàlla ne loolu ndëkk bi dimbalinte amee ngeen di ko doxal seen biir rekk mujje ngeen nekk benn te lislaam téena leen ci benn guum muy waxtasimu bi xablillah bon dimbalinte leen mbokk yi kon ki ngay dimbali daf lay jàppe soppeem daf lay jàppe boppam moom jàmm rek la lay yéene kon day wane ne bu ñu dimbalintee rek am force bokk na ci ngëneeli dimbalinte lépp lu ñu bëgg bu ñu nekkee benn rek dinañ ko gaaw jot te benn coono du am xolal yonent yàlla Muusa ba ko yàlla di yónni mu ne ko waj'al li waziram min ahli haaruna ahi ushdud bihi azri yàlla sama frère boobu di Haaruun jox ko mission mu dëgëral ma dooleel ma parce que kenn nit rek dafay manqué doole kon ñun ñëpp noonu lañ war a mën mel kon dimbalinte mbokk yi dafay tax lu ñu bëgg ñu man ko jot yonente bi ne al muminu lil mumin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da julli tax mbokkam dañu melni ay birik ni ñuy rabalante solidarité boobu am seen biir ba ñu mën a jariñ ba jariñ taax mii kër gii nga dëkke faneen faneen solidarité kon loolu boo ko xoolee ci biir kii rek gis ka suñu bopp kon nañu jàppalante mbokk yi bokk na ci noonu le dimbalinte boobule dalay dimbali ba la ngay def yàlla subhanahu wa dana ko gis maanaa koo dimbali lu baax lu mu newe di nga ci am tiyaaba yow ma ko dimbali يعني انت المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة يجب دي وحشوا الدم لنتي كل ليل جلد كل ناندل جلد كوكا جوخ صلو ku ko dimbali si aajam yàlla dana la taxaw foo man a ne kon ku bëgg yàlla taxaw la jamono bi ñu toll ñi daan góor góorlu ñépp daana ko bunte yi dafa tëju waaye yàllaa ngi fi xakim la lu mu def rek xam na li tax kon sa mbokk moomu tey bir la na la ah, fa mu daan jële day mu fa daan jële fukk léegi benn ba sax ndax dana ko fa jële kon da geestu ko diko dimbali bayiko xel jamono bi dimbalinte fi la gën jaadoo rawatina ci wéru koor wi ñu ne it kon dimbalinte amul jamono jamono bépp la du wéru koor rek du wéru tabaski rek waaye dafa am ay weer am ay fan yoo xamante ne daf ci baax lu mel ni weeru koor nga xam ne nit ki moom daanaka day gaaw fatox njabootam te dafay soxla ndimbal weeru jaamu yàlla la kon nga dimbali ko gis nga it mbas mi économie daanaka yëpp ralenti fa mu daan dem di fa daan doole ñu bari ñu ngi dem chômage technique ñu bari heure yañ daan am amatuñu ko ñu bari toogloo nañ leen boo xoolee ci dëkk bi transport bi dematul boo xoolee ci dëkk bi njàngale mi doxatul boo demee ci dëkk bi laneen doxatul laneen doxatul kon nag yow mii yàlla joxas tuut bàyyil xel sa mbokku jullit mbokk mi yonent bi nee kep ku taxawu julit yàlla taxawu la ku sutural julit yàlla sutural la fi ci adina al-akhirah motax yonent bi ne bés bu jot yàlla yebal ñaari malaaka ñuy taxaw di ñaan ki naan yàlla kep kuy joxe yàlla nga ko wutal li muy joxe waye kep ku mana joxe ta beñ na du joxe la mu yor bu sanko yoonu kenn nekku ci kon yàlla dafa bëgg kuy joxe kon kuy joxe it doo jàq mukk doo na ci tiis mukk foo nekk yàlla dana la wallu xoolal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee xaaru qiraa ñëw zammiluuni dassiruuni suñ yaay aïcha ne ko xadija ne ko wallahi yàlla du la toroxal mukk ndax lan wax ay qualité yu bari da ngay dimbali ñëw doole da ngay toppatoo gan dangay ngay ormaal gan da ngay teral gan da ngay dox ak mbokk ku am aajo yaa si man yaa ngi dimbali ñëpp qualité yu baax yooyu yëpp ci wàllu dimbalinte mu ne ko yàlla du la seetaan loolu tamit dafay valable pour ñun ñëpp kon mbokk yi waxtu wi jot na ñuy dimbalinte ku ne bañ a seetaan sa mbokk bul ne ah jamono bi de naxari na waaye am nga loo ko tanee dimbali ko te yàlla tax te ndimbal mi it bu mu yëg ne danga ko yërëm di ko dimbali bu mu yëg ne danga ko tane di ko dimbali bu mu yëg ne da ko xeeb di ko dimbali bu mu yëg ne danga koy wan ne maa la ëppale di la dimbali waaye na yëg ne mbokkam moo jóg ngir defal ko teraanga na yëg ne jullit ni moom moo jóg ngir jàppalante ak moom na jóg na yëg ne li nga koy jox ci yàlla la bawoo jaar ci yow mu moom ko nga war ko ko jox na yëg ne ki kay jox ko bëggul mu torox na yëg ne ki kay jox bëggul muy taxawaalu fen am njaxara joo xam ne du mën a dem ci moroomam na yëg ne boppam moo taxaw kon su ko defee la mu doon wax moom borom bi innama nutimukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura kon yàlla na nu yàlla nangul ñiy dimbalewaate yépp mu néew mu bari ndax yàlla xamul lu bari waaye moom lu sell rek la xam kon képp kuy def rek na nga def te yàlla tax képp kuy def na nga def te yàlla tax yow mi ñu ko defalit na ko ñaanal te lu mu la jox santale ko yàlla ci loolu bul ko ko xeebal santale ko yàlla ci loolu bul ko ko xeebal ndax kenn forcé ko mu jox la ko moom moo am yéene ci yow moo am bëgg-bëgg ci yow moo bëgg a dimbalinteex yow moo bëgg jaayanteex yàlla ci yow jaarale ko ci yow kon nang ko ñaanal santale ko yàlla xéewalam dolleeku kon daal mbokk yi dimbalinte jaadu na ci waxtu wi yananu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dana leen nangul seen koor dana leen defal siyaaba yoo xamante ne kenn mënul xam fan lañ koy nattale lii lañ leen andi leen tey ci fi ñu toll ci Covid bi waaye ci wàllu dimbalinte ndax lislaam moom jiitu nañu ci lépp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura di leen dox daje incha allah ci beneen waxtaan wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu